ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da di di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne mën a xam mbooleem loo xam ne. asalaamaaleykum mbokk internet ak kontaan li ma am saa su nekk di janoog yéen waaye tey ñu ngi janoog xamante ne kenn dootu ko présenté waaye rawatina fii ci diwaanu ñu ngi lay ziar.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 di la wax tafadal ñu dugg ci liggéey bi incha allahu taala. waaw ku baax ki xam nga comme ni nga ko waxee ñun dañuy liggéey. liggéey bi ñuy liggéey mooy waral internet mën naa fi gëj at bi damaa limité li may dugg ci internet maanaam at bi damaa limité it li may génn li may feeñ ci at bi parce que saa duma ko mën a boole ak yeneen yéen bu ma la waxee ba ma gëjee génn internet léegi dina def 4 mois wala 3 et quelque parce que li koy waral mooy dama dul am jotu chaque jour tamit di nekk ci internet bi di jéggalu bu baax a baax nag nit ñi bëri na yu fi xew yoo xamante ne dañuy woo di wax ci internet bi pour ñu génn ci wala dara waaye fekk banuñu ko waaye jot gi moo ñu ko dul may ala bu ko defee comme li nga wax noonu doomu aadama yi lu baax lañ bëgg fépp fu ñu gis seen njëriñ daw fa ñu nag ni ñuy liggéeyee ci seet ak listixaar mooy képp ku fi ñëw foo mën a nekk ci àdduna bi tamit ñu soxlawuñ jëmm boo ma joxee sa tur jox ma sa turu yaay rek ala kulli xaalin ni apprenti yi bokkulee noonu la nit ñi bokkulee boo tax boo ma joxee sa tur jox ma sa turu yaay rek su ma ko xoolee dama lay mën a wax ci sa bopp loo xamante ne da jàpp ni kii dafa fekk ba may judd wala dafa dañ koo jox sama dund ala kulli alin parce que dañ cee yor ay xam-xam yoo xamante ne lépp luñ ci wax nit du dañ moo tax ala kulli alin seet ak li si xaar lu mu ci mën a doon lépp lu luñ ci defal nit see boo tëdd nelaw mooy dox ba léegi mooy waral tey. bu bu bu ma la nee kii mooy nekk président wala kii mooy nekk ministre wala kii day faatu wala kii nàngam wala mbër mi dañ koy daan wala équipe bi mooy gagné yooyu su ma ko waxee nit daanaka Sénégal moom léegi yooyu ñi ma ci xamul bariwul yaakaar naa ne lu ma ci waxee dara mbindeef bu yàlla bind mënu cee dindi ndax yaakaar naa 2018 ba léegi maa ngi génn ci internet yi di wax ma fay wax lu nit mën a dindi virgule loolu nag li ko waral mooy xam la bu suñu borom euh, may di ñu wan loo xamante ni ala kulli alin lépp lu ñu ci wax dara du dañ loolu moo ko waral ku baax gi déedéet de man duma serigne bobu man kumu neex sama video top ko 4 ans ci ginnaw amul lenn lu may wax du football du beure du politique du lenn amul lenn lu may wax nga man cey genn lu toll ni virgule nan di waxone li te amut. parce que lamay wax duma ko tege sama tay bakken ak reer naa ba sour damay wax li nga xamante nit mënu ko dindi motax ñaan yalla ni ngay gisee ni neexuma ci deret awuma ma ci ku ma kay ma ñaanal lak ñewal ma dimbali la ndax képp koy xalaat rek xamna ko ci ñaan yalla waaw ah, képp koy xalaat xam naa ko ci ñaan yàlla lépp looy xalaat li nit soxla ci ñaan sëñ bi lenn la mooy kër mooy oto sunu borom dimbali nañu ci kon ala kuliyaan aw ma lu may daw di topp ci kenn Sénégal fii ñu fi nekk di sàkku ay président ñama ci xamut bariwut wa mais mais gisante ñoom sax man yooyu du ma ko du ma ko def kaa du ma ngand ngandloo parce que loolu ak xam dara bokkut ndax man yow ak kii président beeg ki gën a tuuti laa yemale man gëwuma yooyu mais dama laa bëgg a xamal ni fii ku ne xam nañ ko ku ne mu ngi fii ñëw loolu laa la bëgg a wax. waaw bu boobaa dañ koy xool mënoo ñëw rek tey wax ma ne la ah mën nga ko doon ndax nit woo na ma contacté na ma ngir boole maa koo xam ne da doon wut président ba mu woowee tag dama ko ne noonu ko loolu mënta nekk su ma la waxee waa damay lekk sa xaalis te du am. loolu dafay nekk ci question de biddéew ndax poto bu nekk ak la mu àttan moo poto boo xamante ni fer 6 la boo ci tegee plus 3 da kay daaneel mais boo bëggee teg plus 3 da ngay def fer 12 wala fer 14 noonu mooy mooy ñaan jëmm ju nekk ak sunu borom li mu def ci yow nga mën a àttan lenn li am na koo xamante ni mën na gérer kër am koo xamante ni mënta gérer sax néeg bay gérer kër am koo xam ne mën naa gérer quartier am koo xamante ni ci biddéew la mu toll mooy mën naa gérer réew kon loolu laneen la doo ñëw rek wax ma ma ne la waa dama koy xool ba xam lii lu mën a nekk la wala mënta nekk nekk bu mënee nekk mën a la bismillah bu mënta nekk boo indiwoon woon milliards yi lijjantiwu ma la ak say milliards dama lay wax mënu nekk ku baax yi <laughs> mhm. Mhm. waa xam nga loolu moom dama cee dimbali ay nit ba taay dama cee maanaam jàppale ay nit ba taay mbirum këyit may naa ci ay secret ndax am na si yoo xamante ni boo demee ci internet bi boo tàppee sama tur rek Serigne Alxaaji Diop Mbour ñu indil la ko foofu li ma fay jàngale ay xam-xam kese laa fa doon jàngale donte gëj naa kaa def mais daan naa fekk site yooyu ay xam rek daan may xam ku bëgg lii ku bëgg lale kuñ liggéey képp koo xam da bëgg tukki kon yooyu moom yaakaar naa ni weesu naa sax fu may ñëwee naan nii di ko defaraat dama ko daan maye nit ñi di ko def di gis résultat di ma woo di ma defal lu nekk ala kulli moo tax képp ku bëgg kayit ak kayit goo mën a bëgg ak réew moo nekk ak fépp foo bëgg a dem boo ñëwee fii bu ñu déggoo ñu liggéeyal la ko sunu borom jox la ku baax ki <laughs> waaw loolu nit ki bu ñëwee bu fekkente ne wàllum am doom dafay nekk ci dogalu sunu borom yi souvent am loo xamante ne rab moo koy def am loo xam ne feebar la mais lu mu ci mën a doon rek ñun bu ñëwee bu ñu ko xoolee ba xam ne kii sunu borom bind na ci moom mu war a am doom dinañ ko ñaanal bu ñu xoolee ba xam ne kii nekkul koo xamante ne ci àddunaam ko war a am doomit bu boobaa duñ ci dugg dañ lay wax demal faneen <laughs> waaye ñun duñ ci dugg. waaye yàlla rek moo mën a faj lépp moo xam lépp xam nga ñun ay ñaankat lañ mais boo bañee tirian te bañ a lekk naxe bañ a lekk xaalisu jàmbari bu nit ñëwee ci yow danga koy wax lu mën a nekk man ñi ma xam xam fii laa dëkk man mbuur laa dëkk man man dëkkuma mbuur dem Tëngéej wala ma dem Dakar wala ma dem Diourbel man fii laa juddoo fii laa yaroo fii laa nekk man fii ñëpp xam nañ ma man duma dox ci tappale ay caaxaan comprendre man dëkkuma Saalum ñëw dakaar wala ma luyee mais man fii laa juddoo man mbuur laa dëkk te fi ngeen ma fekk fii laa juddoo nit ñi xam ma manuma daw du ma wax lu dul dëgg it lépp lu ma wax loo xamante ne du dëgg it nit ñi weddi ko kon man fii laa juddoo xam nañ ma bu baax man doxuma ci ay kii borom ñeenti dërëm ak téeméeri million laa yemale dëgg rek laa doxal loo mën a doon ak koo mën a am faalewu ma la ak sa xaalis ku baax ki waaw jaare yooyu moom monde entier xam nañ ma xam nga man YouTube moom léegi boo duggee site yu bari damay bañ a tudd seen tur mais sama tur waa kay kenn dootuma présenté jaara yooyu moom dañu koy liggéey liggéey yoo xamante ni ñi ko am moom yaakaar ne leneen la wax ndax nee naa la jaara boobu boo ko amee doo doo dugg kaso muy benn li muy njëkk a def kenn moom laa dugal kaso déedéet jaaro boobu. waaw xam nga yooyu dafay am yenn yoo xamante ni tey jii nii nit ñi dañuy ñëw bu kooku boroom xam-xam la kooku jàmbaar la kooku nitu yàlla la. la muy wax ne ku ko def doo dugg kaso moom nañ topp ndax moom def na ko wala defu ko te bu ko defoon sax terewul loolu baax waaw ah, même bu defoon loolu moom. mais nit da ngay xool bu liggéey bu la nee mën naa defar loo xamante ni ku ko def am xaalis defar la loo xam da ngay am xaalis dangay xool moom ñaata la defaral bu defaree téeméer quatre-vingts yëpp am xaalis vingt yi échec nga xamante ni kon veille est-ce que du ci ñoom moom la muy wax kon loolu wér na wala nga xool ni kat veille kat a ah, ndogalu yàlla da cee dugg waaye kii kat la mu yor lu wér la mais doo xool nit ki di dund di liggéey di liggéey di liggéey ñaata at duggul kaso benn problème bu ndaw boo xamante ne lii moom kenn mënu ko wax dugg kaso benn fan ñaar rek nga bëgg a di la mu liggéeyoon la mu defee wala nga ne xamul dara nit ñi dañuy juum kooku ku baax la boroom xam-xam la la mu wax noonu man loolu laa gëm loolu laay dund. ndax am na loo xamante ni tey boo ko defee kenn mënu laa dugal kaso te loolu moo wér mais kaso nag bi si gën a bon nit kaa ngi dund kaso si biir këram kaso du lenn mooy loolu fu ñu tabax rek dugal na fa loolu du dara mi ngi lekk mi ngi naan bu ko bëggee day sangu bu lay def leneen kon kaso nekkul mbir boo xamante ne mais cas bi mi ngi nekk ca lan moo lay dugal kaso xam nga seen baara jaa du deful lu ko dugal kaso. dañ koo forcé nekk ko farfa dañ lay yóbbu fa la tëj la ni ko yow mënoon nañoo ñëw jaay doole ne la dañ lay jëlee sa kër indi la indi la sama kër noonu la mel mais kaso da ngay xool li fa dugal jaayu yàmba ñu dugal ko fa sàccul fennul deful lenn loo xamante ne lii ma ko mën a dugal dañoo ñëw rek téye ko ne daal da ngay jóge fi dem fa la loolu nag man damaa ndax man mën naa génn léegi sama oto bii nii daje policier ñi nit ma ba pare sax ma am ci problème dem kaso waaw kaso ba nag la ngay xool nit bu duggee kaso souvent da xool kaso jommul kenn yonent yi dugg nañ kaso yeneen yi am na si ñoo xam ne Seydina Yuusufa dugg na kaso sunu yaakaar gi nga xamante ni moo nekk fii Cheikh Ahmad Bamba dañ ko téye woon def ko comme prisonnier kon yu mel noonu yooyu ay détails la am na ci ñoo xamante ne seen i maqaama sax si kaso la yokkoo kon loolu ñu tuddee kaso yooyu du kaso mais nañu xool ban conséquence lan moo la dugal kaso loolu la ñu war a xool waaw tey jii man mën naa génn nii sama oto bi ma am ci problème ñu yóbbu ma kaso. mais da ngay xool kii lan la def day jaay yàmba wala day sàcc wala day fenn wala dafa violé wala yu mel noonu yooyu ngay xool lan moo ko dugal kaso mais koo xamante ne da ngaa toog defoo dara ñu ñëw téele yóbbu la loolu mën na maa dal man mi mën na laa dal mën naa dal keneen ak keneen fa tabaarakallaa ñu jàll ci yeneen ku baax ki waa jaara ba waa jaara li may wax mooy dama la ci tënkal lu luñ ci liggéey dafay dox ci juróom-ñaari ayatul fatiha yi ndax xam ne juróom-ñaari ayatul fatiha yi dafay dox ci bési yaa ngi dégg bu baax na alhamdulilahi rabbil alamin dimanche la arrahmaani rahim altina maliki yawmi din talaata la iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in àllarba ihdina siraatal mustaqim jeudi siraatal lazina an'amta alayhim vendredi ghayril maghdubi alayhim wala daalin amin mooy samedi semaine bi jeex mooy ànd ak juróom-ñaari biddéew yi ñuy wax ni muy muy muy samsu xamar mari utari mustara zuhata zuhal mooy ànd ak ba léegi li nga xamante ne moom la ñuy wax turu yàlla yi fardu jabaru sakru sawabu zahiru xabiru zakkiyu mooy ànd ak ba léegi moom la ñuy tënkee loolu mooy fa jasasun zaxasun mooy ànd ak rawxayaalu jabrayaalu samsa yàlla mikaalu sarfa yàlla xanaa yàlla kasfa yàlla mooy ànd ak turu jinne yi raw anu suuf li yàlla dimba sa marata ahmad burhan sama yii mooy tënk jaara bi ñu liggéey ko duñ ko bindee big yi ñuy gis nii loolu dafa am encre genre daa bu ñuy defar moom la ñuy liggéeyee loolu ala dafa am ci semaine bi bis yuñ koy bind buñ ko liggéey jël turu nit ki ak turu yaayam rek la ñuy jox ñu liggéey ko jox ko jaara bi mu tàggoog ñàkk ku baax noonu la demee. <laughs> yàlla da koy dimbali waaw. waaw loolu dama bàyyi may ci tuuti rek ku bëgg soxna wala nga bëgg borom kër da ngay dem ñu bind wala tamuddanna aynaaka illaa ma mata'na bi azwaaj minhum zurriyata alxayaati dunya li naftina fi wa rizqu rabbika xayr wa abqa wamur ahlak bi salaati ba mu jeex moom ngay bind boo ko bindee juróom-ñaari yoon nga fexe ba wut li nga xamante ni mom lañuy wax bëréwal nga wes wessor nga sango loolu nga bindat ko juróom ñaar yoon ut morso bo xamanteni ken kenn mësu ko fóot morso bu wex bu weex comme percal wala milikaan nga jël ko nga ëw ko ci nga ala kulli alim bala muy am ñetti wër di nga am soxna wala di nga am borom kër xana nga bañ inshallah allah lañ maye. allah ci waa sa sangaat yi moom mooy li ma leen waxoon xam nga man moom li ma leen waxoon ñoom xam nañ ma ñoom ñoom xam nañ ma xaj nga réew mi yow yaa ma xamul mais ñoom ñooñu ñoom xam nañ ma bu baax. waaw maanaam dañ maa xam sax dañoo xamante ni parce que man gëwuma yooyu waxoon lépp lii nii yëpp waxoon naa leen ko. waaw mais dañuy jàpp ni naam cest à diir xam nga ñoom dóorkat yi dañoo bari ak naxekat yi. moo tax waaw bu ñu kii dañuy jàpp ni kii dañoo bëgg a dóor te xamuñ loolu mais yii yëpp waxoon naa leen ko waaw mais dañoo jàppoon ni xam dóorkat yi mooy li ma la wax dañoo bari. te <laughs> léegi xam nga amay amay waxoon naa leen ko dama leen ne woon ci sama émission yi ma defoon ci yeneen site bu ñu ñëwee ma liggéeyal ko loo xam ne du dugg kaso. du duggu kaso. mais bu ko deful maaru ci sama loxo toog ndax man maa ko doon jàppale ci kaaw aji saar bi dama cee daj lu ne doon ko liggéeyal kaaw mbay mbay ñaa bi it ku ma seetaan di samay émission yi ma doon def dama cee daj lu ne mais bu ma ñëwee nag ba xam ne ñii booy jàppale nit it te moom defoo mu def benn affaire mën ne leen bu boobaa dama leen ko wax internet laa ko wax ma téye ma téye sama loxo xool ne leen seetaan leen comme am ngeen yeneen sëriñ yoo leen wóolu bismillah ñu dawal ñu xool fu mu mujjee li ma leen di wax mooy leen buñ ñëwee léegi léegi léegi ci man. déedéet buñ ñëwee léegi ci man màggal gi day màggale këram. barki alxuraan. ñooñu Cheikh baara incha allahu taala maa ngi ñaan ñi nga xamante ni ay rakkam lañ wala ay yenn taalibeem yu ko jege nañ ma contacter buñ ma contacter dinañ leen teg ci yoon woo xamante ni. dina ñibbi léegi këram màggal gi ci kàttanu sunu borom dina ñibbi dina ñibbi léegi këram sëñ bi di nga génne nit kaso ak lu mën a def dafa am secret boo xamante ni dañ koy liggéey ci ginnaaw jàkk da ñëw ba ci ginnaaw minbar boo ñëwee ba ci ginnaaw minbar foofu ngay toog nga am li lim boo liggéey jël turu nit ki turu yaayam am loom lim boo liggéey ci benn turu yàlla ñaan ko wala <laughs> wala day day génn génn bu gaaw waaw loolu miraaran wa takraar maanaam ay yooyu dañ ko mu jarab dañ koo defa defa defa def ba soxna moo tax bu ñu ñëwee ci ñun rek ñu mu génn incha allah loolu lañ ciy wax xam internet yi moom dama fay weesu fu may waxee man naa lii xam naa lii ak lii parce que wax dëgg yàlla dama cee sonn waaw. waaye dañoo amul yaakaar ci Sénégal rek xam nga yow boo nekkee ci kër te amoo fi yaakaar da ngay jéem a wut beneen kër loolu mooy jeunesse bi dañoo nekk Sénégal gis na muy doxee amuñ fi yaakaar mënuñ ci dara. moo waral ñuy dem foofu ñun ñëpp tekki moo leen waral dañoo da gis ñu dem Burkina da ngaa gis ñu dem Togo Congo Angola demuñu fa fan lañ dem Espagne fa lañ am yaakaar moo lay wane ni ñi xam ne li ñu bëgg xam nañ li ñu bañ loolu na bu ko defee nguur gi moo war a xam ñun dañoo ñàkk jom ñàkk fulla waaw ñàkk jom ñàkk fulla moo waral tey jii nii bu France nekkoon France di ñëw Sénégal day dem jëb passeport am jënd bi ñëw yow boo fi jógee bëgg a dem France ñu ne la non du demee noonu dañ lay laaj que dossier yëpp nga remplir ko boo paree nga jóge loolu fay dem ambassade fay 80 mille francs ba pare ñu dem ñu ne la mayuñu la nga perte sa vingt mille pour nga teg ka fan te nit ki xamoo fu mu jëlee xaalisam yooyu mooy ñàkk jom façon ñàkk jom jooju mun moo moo ñu dal ñun ñun ñun sénégalais yi de de lolu mom mom waxu dof mom domam bu beugé dem dem jarbatam bu beugé dem dem mom bu beugé dem dem nonu mu len yombé nonu bu yombé won ni duñ jaar ci gal nak kenn yaakaar naa kenn du gis auto di dugg ci lang ci saret di nga gis auto yow beugé dem ville di dugg ci saret yoyu waxu dof la xam la moy problème bi dañuy am fulla ci sen bop barki dem li kay waral moy lan keñu japp jàpp lamu dañ ko jappé mo gëna danger lañ japp niñ tej ci kasse bi mais mais nit ku weex la complexe bobu manam dañoo gëmut suñu bopp ñoo ñoo ñu ñàkk jom lañ ku baax ko ñu jàll ci leneen. mais xuwaan mhm. waaye kaso yi ñiñ fa dugal te defuñ dara moo ëpp ñiñ fa dugal ñu def dara. waaw damay waxtaan ak sama benn waay bu nekk su Suède. mu ne ma élage bu ne ma fii bu ñu la dugalee kaso mu ne ma fii da gis koo xamante ne day dem ba dëkk bi nii amul fu mu dëkk mu ne mu jéem a def benn bëti sàcc wala dara ñu jàpp ko yóbbu kaso yi ndax fa lay noppaloo. xam nga ñi nekk si wet ñu ngi fi ñu ngi may dégg bu dee li may wax dëgg la dinañ ko xam bu dee li may wax du dëgg dinañ ko xam. may tëjee mooy di ñaanal ñëpp jàmm ak sutura di ñaan képp ku fi am yaakaar lépp lu mën a doon ba ñëw fi lu mu mën a doon boo fi ñëwee yàlla na yàlla faj sa aajo képp koo xamante ne amoo fi yaakaar faneen nga am yaakaar yal na yàlla womat la nga dem faneen ku baax ki di wax ni li ma doon wax daaw laay wax ren képp ku fi ñëw lépp loo bëgg buñ ci d'accordee sunu borom dina la ko defal képp koo xam ne boo fi ñëwee sa aajo du faju yal yàlla musal ma ci yow nga dem faneen ku baax ki di leen nuyu di leen ziar di ñaan seen site bi yal na yàlla def ko télé ci barki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wasalaamualeykum wa rahmatullah ngir ngeen di jot suñu vidéo nag foo leen toll ci biir réew mi wala bitim réew da ngeen di abonné fii ci Farokh TV ngir mën a jot mbooleem vidéo boo xam ne dinañu ko ngir mën a xam mbooleem loo xam ne ilallahi wahdahu yanaalul